أيها الإخوة أحييكم نتقيات الإسلاميات هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اللقاء أريد أن ننبي لا نقطة همة ستناولها وهذه المحاضرة فهي أخوة دينا wa damaawiyan wa iraada mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi mbokki lislaam ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam kenn ku nekk ci yéen ñu ngi lay fekk fa nga toog wax la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi shérif di ko ñaanal moom it mu ñaanal ñu yàlla defal ñu jàmm ak tawfiix akuk taalibe ndax ñun soxlawuñu lenn lu ak taalibe di gën a bëgg sëñ Tuubaa rek. bu loolu wéyee alfadilatul imam sa kàddu jotal na trop yow it ñu ngi lay ñaan yàlla na yen bi woyof Baye Ndiaga ñi ngi lay ñaanal yàlla yow it yàlla na yàlla defal wér ak wérle ba njëriñu njaboot bi yépp nga teg ci sa loxo di ko ñaanal sa njaboot yëpp yal yàlla defal leen jàmm di ko ñaanal waa xaar yàlla yëpp di nuyu nag jàmbaaru baay Cheikh bi Cheikh Khadim Ndiaye moom sëñ Babacar Mbacké sëñ bi di ko béggee muy béggee sëñ bi muy Baye Fallou Serigne waaw. di ñaanal nag mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi teew yépp ak mbokki dëkkandoo yi parce que ñun nag suñu jotaay dafa am nu muy doxee ñun fédération la ñu yor yor calendrier fédéral di doxal at bu jot samedi bu jot ñu am bërëb bu ñuy dem di fa liggéeyal sëñ Touba ànd ak ndaw ñi loolu ñu indi fii tey. ndax samedi bii passé ñu ngi woon Bargny bii yoon waa Konachap ci njiitul Cheikh Khadim ñoom ñoo aaye moo tax ñu ñëw fii ak mboolem mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ñaanoon Cheikh Khadim njaay ne ko nit day booy wane sa bopp demal ba gisee say biiri bopp demal fa nga yaroo nga won leen sa bopp nga won leen lu ñu def ci yow ba ñu xam ni yow kat am nga yar am nga teggit am nga lislaam kon nag looloo waral ñëw fii di ko ñaanal nag yàlla na ko yàlla taxaw taxaw xale yi nga xam ni moom la ko yàlla boole mu di leen yar teg leen ci yoon xale yi bëgg ko bëggaay boo xam ni yemalewuñ ko ak dara bis bu ne loolu laa leen di wax man dama leen féetale ak Cheikh Khadim mu yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim te mu ngi ci liggéey boobu te Cheikh Khadim ku ko gis bëgg ko parce que yaru na am na teggin am na taalibe tabe na maandu na te bëgg na nit kon yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla musal yàlla bu ko cat jiitu ci biir liggéeyam bi muy def ndax ndamam mooy sama ndam waaye sama ndam mooy ndamam te sama ndam mooy sëñ Touba waaw kon mbokk taalibe yi dañu demoon Bargny waxaat waxtaan fa waxoon ci ñetti tomb ma bëggoon ma dellu si ci tuuti rekk ndax dina xawa am lu bari lu muy defar ci suñu réew ñetti tomb yooyu xëy na politiciens yi ñoom aadama ak ma jóg suñu déggee fi may waxe dinañ xam ni Sénégal benn bopp la te kenn mënu ko xar ndax lépp luy boole ay nit ñun loolu mooy suñu rôle ci kaw suuf di nuyu soxna maam Faati di sama xarit di sama rakk di doom ci alaaji Fàllu Mbàkke di nit ku simple ñu koy ñaanal xaar yàlla bi mu nekk eh, ñu ngi ànd ak yow saa su nekk te di la booleeg suñu njaboot xam ni yow suñuy njaboot yaa leen moom sa njaboot ñoo leen moom te yow xam naa la xam nga ma yàlla na yàlla dolli sa sutura sa jëwriñ bi wax léegi macha allah ku baax la moom it fu mu dem lu baax rek la lay waxal ginnaaw kon mbokk bi ma leen nuyee wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa fi hada liqaahi uridu an nunabiha ila nuxtatan muhimmatan satanaawaluha هذه محاضرات هي أخوة أخوة دينيا ودمويا وإرادة mu wax ni jotaay bii ñu nekk tey dama bëggoon waxtaan tuuti ci loo xam ni jiitu na suñu juddu te yàlla wax ko ci alxuraan lu bari muy mbokkoo parce que dañu tolloon ci jamono boo xam dañu doon def élection xiiroo bi am ñii naan tugalóor yi fii ñii naan séeréer yi fii ñii naan murit yi fii maanaam daal ñii naan joolaa yi fii loolu warul am Sénégal très dangereux moo tax ma yaakaar ni ñun chef religieux yi suñu liggéey war na tàmbali ci wax lii boole sénégalais yi wax ci simoo bi abdillahi jamihan wala tafarraxu lu am importance léegi nag diine bi muy laata taxaw may wax ci ñetti tomb may wax ci mbokk deret su ma jógee ci mbokk deret ma wax ci mbokku diine suñu ko waxtu wi mayee ma wax tuuti lan mooy ak taalibe ak naka la ñuy dundee ak bi ak nañ naka la ñuy doxalee ak bi murit bi génnu ci tiijaan bi génnu ci parce que man tey jii tiijaan la xaadir laa murit laa en quelque sorte booy déglu sama wax da naan kii daal Aboubacar muslim rek la loolu mu am solo diw lii la diw laa la amul solo li am solo mooy fexeel ba yow nga doon jullit xaqan boo xam ni yaa ngi dox ci lislaam comme ni ko Cheikh Khadim Ndiaye ñëwee indi ko fii ci gox bi ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla dolli sutura bu ñu ñëwee ci al aqawatul damawiyatu mbokk deret nulaaxizuhu inna al quran quranul karim ixtafada hada al janib bi xaysu arsalallahu rasul ila xawmihi لإبلاغه دعوتهم ñu seetlu ci alquranul karim sunu boroom ixtafasa mu garde lool wattu lool hadal janib bile côté wattu ko mbokkoo mbokku deret dafa am doole mbokk yi ku am sa mbokku deret xamal ni am nga mbokk na ko téye na ko jàpp na ko suturaal loolu lu am solo la moom ci loolu laa bëgg développer tuuti wa hadal janib ci boobu côté maanaam mbokku deret bi xaysu arsala allahu rasul ila xawmihim li iblaahi daxwatihim yónni gi nga xam ni suñu borom yónni na ko rasul yi ay ndawam ilaa xawmihi ci seeni nit yàlla musul yónni ab yonent yàlla musul taxawal ab sëriñ yàlla musul tabaxal ab xutba te defewu ko ci biir ay bokkam boo amulee bokk sax ñu sot la boo amulee ay bokk ñu sot la kon mbokk dafa am solo te léegi nit ñi dañuy ñàkkal fayda mbokku deret te mbokku deret dafa foor ndax yonent yi bi ñuy ñëw dañ leen yónnee ci seenu nit ila abaihim wa ixwanihim kaafatan dañ lay yónni ci sa ay bàjjen walla ñu yónni la ci sa ay rakk wala ci sa ay mag mboole seen ñépp nag kenn du des loolu pour lan li yurshidu hum ilaa ittabaha wa amirullahi waxtaniibu nawaahibu lu tartahi ila abahim yónni la ci sa ay mbokk say jën ak say frère li yursida pour nga gindi leen illa atabaha wa amirullah ngir ñu tënku ci ndigalul sunu borom ku ñëw yonenti bu ñëw xoolal alquran ku ñu yónni ku ne ba ci ki gën seydul xalq imaamul mursalin ci ay mbokkam lañ ko yónni kon nag wattaniibu ngir ñu teeg bu leen yónnee ci ay mbokkam pour ñu teeg ñu moytu nawaahibu li tartahidum ngir ngoo ñu xam ni mën a moytu mu di leen wax di leen waar di leen soññ ba ñu ñëw wëlbatiku dugg ci biir diine ban diine la ñuy dugg bu ñu duggee ci kalimatul xaq man xaala laa ilaha illa daxalal janna kon ku fi ñëw di ab yonent yàlla yónni ne la ci ay nit nit yim lay yónni say frère lañuy doon say bàjjan la ñuy doon say nijaay lañuy doon sa mag lañuy doon wala yooyu lay yàlla di yónni ci biir nit wala bu la yónnee ci biir nit ñi nga xam ni ñooy say mbokk balaa ñu lay nangul bu dee da ngaa tuddoon xaadim xaadim lañ lay wax bu dee da ngaa tuddoon Babacar Babacar lañ lay wax bu doon dangaa tuddoon Ahmad te waxuñu la rasulullahi boobu garaat bi nouveau bi duggagul moo tax liya chaahu fi zilli amri salaamatan mu ñëw nag ngir ñëw ci ker goo xam ni di leen di andi ci keppaar goo xam ni daf leen di digal loo xam ni seen jàmm ak seen mucc ci la nekk moom mbokk moomu nga xam ni mooy woote ba léegi dama koy jël ci Cheikh Khadim Ndiaye parce que Cheikh Khadim Ndiaye boo ko jàppee ni Khadim Ndiaye ba ñu tuddee woon Baye Ndiaga tuddee woon da ngay juum waaw man ba may juddu tudd moo woon sëñ Babacar Babacar lañ ma doon wax ma jékki-jékki Babacar bi deñ ñu dindi sëñ Babacar bi sëñ Babacar bi deñ ñoo di sadeexul mu kabaru moom ku ko mosaan romb fii xaadim nga koy wax walla maam Bamba lu tax kenn mënatu ko baayam mënatu ko yaayam mënatu ko rakkam mënatu ko nijaayam mënatu ko looy wax Cheikh Khadim Ndiaye looy wax imam Cheikh Khadim Ndiaye parce que dafa dolli waaw daa yokku wax nga dëgg de ñu xool yaqulullahi taala yàlla wax ilal nabiyan hudan yaqulu tabaraka wa mursilan nabiyan hud alayhi salaam ila xawmihi haat yonent yàlla huut yàlla bi mu koy yebal ci ay nitam ay mbokkam ay baayam ay nijaayam population bañ ko yónni woon population haat la tudd bañ koy ba mu nekkagul woon yonent nekkagul rasul haat rek la ñuy wax haat huut huut huut huut rek la ñuy wax waaw parce que daraja bi duggagul moo tax mu wax alquran wax wa xaala ila haadin aqaahum huudan yàlla wax ila ahaad population haad bi moom ci seen mbokk ma nga xam ni mooy huud yàlla yónni na ko ci population boobu wa arsala nabi saalix yàlla yónent yàlla saalix dégg naa si ñenn ñuy wax sax saalix boo waxee ñu ne du saalix yónent ilaa xawmihi yàlla yónni ko ci ay mbokkam yónni ay mbokkam ñoo ñan mooy population Samuud alquran wax waxaala illa samuudu aquuhum saalihan kon leer noonu tamit akaza arsala nuuhan alayhi salaam ila xawmihi mu yónni waat nuux ilaa xawmihim ci ay mbokkam ba léegi mbokku deret la ñu ne wa arsala suhayban ilaa xawmihi mu yónni suhayb ci ay nitam fa xaala jaala sha'nuhu wa ilaa madyaana aquhum suhayban mu dem madyaana population ba suhayb la fa yónni léegi nag loolu lu tax yàlla di yónni nit pour muy dem ci ay mbokkam tàmbalee fa li yakuuna xarisiina kar rasulu ala hidayatan xawmihim abnaihim ummaatihim wa ixwanihim wa qablu an laa tufaadihum uqubatan uqubat allah parce que da lay yónni ci sa ay ku ñu yónni ci sa rakk baa ñu yónni la ci sa papa baa ñu yónni la ci sa nijaay baa ñu yónni la ci sa frère jom ba ngay am bëgg ñu baax sa dëkkandoo yañ lay yónneel bëgg ñu baax da góor góorlu rey sa bopp ngir nga am ci réussite moo tax ngay rey sa bopp Cheikh nii bu ñëwee xaar yàlla nekk ko naa sax wane jikko bu rafet wane yar bu rafet ba ku ko gis boo ko xoolee am cofeel ci moom yar baa tax yar baa tax waaw kon ñun ñëpp dañu war a am benn melo boo xam ni ci mbokku deret bu ñëwee am lu mu feeñal ñenn ñi nga xam ni ñoom gëmuñu dara wala ñoom jànguñu dara walla ñoom féetewuñu fenn ña ngay taxaw naan day gisal rek du dem mën a ko njaay loolu dal na ma man samay biiri mbokk day gisal rek loolu yomb na day gisal waaye yow ku dem nga dem ku demul nga dem billaahi wallaahi taalaahi barka alquraanu karim fa nga dëkk kon foofu mbokk deret day duuf xaaw naa taxti uxwat diini li annahu فجه فجه محمية ونعامنا به وحومه ونجوا من عذاب الله ودعلوا في قوله تعالى يلا من bu fekkee ni mbokk mi nga xam ni moo ñëw di mbokkum dara di leen woo di leen waxtaanal di leen jéem a convaincre ba ngeen dugg ci biir l'islam ne leen wóor ni mbokk moomu day fexe na ba ngeen mucc ci bugalum safara fexe na ba ngeen mucc ci ay musiba ah, musiba àdduna yi kon loolu am na solo moo tax yàlla wax ci alquran subhanahu wa taala wal muminuuna wal muminaati baaduhum awliyahi baadun yaamuruhu bilmaxruf wa yanhawna anil munkar sànq imaamu ko doon wax jullit ak jullit dañuy ànd waaye ànd bu ñuy ànd fu ne day am kenn koo xam ni foog mooy doon kilifa gi nga xam ni mooy jiitu mën nit ñi mën cee waaye senegal nag nit dafa naqaree jiital boo jiitalee nit ñu ne waruma jiitu boo jiitalee jëwriñ ci daayira bi mu ne waruma jiitu waaye yow yow si yàlla ngay wut yàlla samp na nit yàlla def na ko mu jiitu te yow yàlla ngay wut moom yàlla lay wut yow loo ko fakastalee loo ko fakastalee du sotti waaw moo tax foog kilifa am nit ku nekk dangay ngay am pour kilifa moo tax kilifa boo ko amee mu jiitu ku ci mel ni imaam mu ñëw si jàkka ji dafay digle lu baax di tere lu bon pour nit ñi mën a gindiku loolu tax wa xawlihi jalla jalaaluhu ci waxu yàlla mi nga xam ne mu kawe mi la innama almuminuuna iqwa mu ne innama almuminuuna way ngëm yi day ixwatu ay mbokk lañ waaye dégg guñ ko ñun xam nga lu tax dégguñu jullit bu nekk jullit ay mbokkam tukulóor bi séeréer bi xaasonke bi joolaa bi ay mbokk lañu koo fekk muy julli muy séeréer muy tukulóor muy wolof muy lu ne muy jooraa moo xam lu mu mënti doon ban la doon muy naar muy pël fuuta muy pël yàlla nee na kooku sa mbokk la yàlla nee sa mbokk la léegi dootoo ko jàppee diw murit la diw tijaan la diw xaadir la diw laayen la déedéet innamal muminuuna ixwa ay mbokk lañu mbokk moomu nag moom lañu war a suuxataat Sénégal balaa mooy yàqu li ko yàq nag warul ay wax ay waasu naan wata nañu fii murid yi ñoo jàpp fii fee tijaan yi ñoo fa jàpp fee séeréer ñoo fa jàpp déedéet Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar benn peuple lañu un peuple un but foi loolu suñu constitution wax donc man damay alerte di wax mbokki taalibe yi bu nu dugal yooyu suñu bopp nanu xam ni ay mbokk lañu l'islam moo ñu tënk kenn ku ci nekk bu amee xaritu pël ba mu am xaritu naar ba mu xam xaritu séeréer jàppal ne innamal mu'minuna ixwa ay mbokk ngeen nit xeeb ko ci mbedd mi fekk ni kat am na kattan ci yàlla am na may ci yàlla mën ngaa romb fii nit mu tëdd ci tali bi fii nga jàppee ko dof fekk ni moom xutbu zaman la mi ngi àtte jamono kon nanu delloo siwaat suñu xel bu baax a baax a baax a baax xam ni ay mbokk lañu ndax alxadis almuslimuuna fi tawadduhim wa tarahuhim wa kal nee na jullit yi booy seet lu tax ñu nekk mbokk dafa mel ni yaram bu demee ba bëñ di metti cër yëpp ay metti boo jàppee ni nag yow sa mbokk jullit comme Adama nu mu dendeek am ma jóg Adama am lu koy metti te ci yaram bi ba bëñ bi di metti dafa mel ni jullit yi noonu la ñu mel bu amee kenn ko am méttee ñépp dañ ko war a fekk si bu Cheikh Khadim wootee ñëpp dañ ko war a fekk si waaye bu amee naqar jullit yëpp dañoo war a jóg compatir daal di ñëw fekk ko fa mu toog daal di wax ak moom dëfal ko ñu won ñu xam ni benn jëmm la boo xam ni bu sa bopp di metti sa yaram yëpp moo koy yëg bu sa bëñ di metti da koy fanaanee xoolee jullit yi noonu la mel ay mbokk lañu loolu la lislaam di jàngale waaw waaw moo tax mu ne wa tarahum kal jasadil waaxid benn yaram la kenn mënu fexe ba loolu du mën a nekk isastaka minhu gudwan wa taddahu wa saaxirul jasad wi saaxiril huma kese bu jeex kon nag xaala aydan almuminuuna المؤمن man salima almuminu min alisaani wa yaddi moo gën a gàtt may man moo ma ci gën a saf waaw mooy jullit nit daa war mucc ci sa làmmiñ ci sa làmmiñ ndax làmmiñ dina wax ba tëj nit làmmiñ ba tëj làmmiñ di jigéen dana wax ba mu tas sëy baaxul moo tax yàlla wutal koy bëñ wutalaat ko làmmiñ bu ndaw làmmiñ mën naa tas réew làmmiñ mën naa tas famille làmmiñ mën naa tas lislaam kon làmmiñ daal nañu fexe nuñ ci muccee waaye nañu fexe nuñ muccee min lisaanihi wa yaddi nañu mucc ci suñu làmmiñ waaye nañu mucc ci suñu loxo loxo mooy dóor loxo mooy tëj loxo mooy bind mooy bind mooy indi catastrophe ci biir réew kon dañu war a dugg au ci yi dañu war a dugg toj yax bi maanaam jàng kii bi rek daal di dem suñu yoon addis bi rek daal dem suñu yoon du doy loxo dafa garaaw loxo mën nga cee dóor nit mu faatu loxo mën nga cee jël bind ci rey ci nit loxo journaliste yi ñoom la yor mu nekk seen arme mën naa gaañ nit mën naa tasum réew hmm? kon ay kii bii addis bi jar naa déglu dégg ko ba na xam ni nii yàlla li mu ñuy digal pour ñu nekk benn xam ni jullit bu nekk tiijaan ba bu bopp bi metti bopp murit bi daa war a metti murit ba bu tànk bi metti dafa war a metti laayeen bi laayeen bi bu guddi ndigg lay metti da war a eh, metti xaadir ba loolu mooy lislaam benn yaram la mais il faut ñu dégg lislaam il faut ñu dégg lislaam ñu xam ni ñun ñëpp ay benn lañu xaadir bi toog fii shérif bi dañ ko war a jox cëram parce que maamam sëñ tubaa kooku rek la bëgg kooku rek la gëm waaye kenn daa xamul sëñ tubaa ndax dafa kéemte kéemtaane kéemtaane ba nga xam ni kenn mënul natt ay mayam kenn mënu koo xam waaye réew mi ku fi nekk ku nekk baax ka ba demee Tiwaawan fekk ba maam Alaaji Maalik sama maam jooju borom Boniface bu rëy boobu ak borom kaala gi ak boroom maanaam parasol bi mhm. ak ci xam-xam bu rëy bi mhm. grammaire yee la boo xam ni naxwu macha allah ñun murit lañu tijaan lañu xaadir lañu lépp lañu notre cause c'est lislaam et nous défendrons jusqu'à la mort. Chers amis, nous voici présents aujourd'hui. Là nous célébrons aujourd'hui le cinquième anniversaire du Daïra de Konachap, mm. mais avec une autre appellation. que Cheikh Khadim a initié pour dire journée culturelle de Cheikh Babacar Mbacké. Merci, Merci, Cheikh Merci, vous, jeunesse de Konachap. Merci, monsieur le maire. Merci, chers parents. Merci, chers imams. Merci, chers disciples et condisciples de Cheikh Babacar Mbacké Sadikhounou Kaboro. Eh, bale sa buri sëñ Mbakke Mara kon santaat yàlla santaat njaboot gi bëggee njaboot bëggee mbokk taalibe xam ne ñun ay jaam-jaamaatu sëñ Tuubaa la ñun duñu sëriñ nous sommes des éducateurs man benn sëriñ rek laa am mooy sëñ Touba ko fi nekkal rek mooy sama sëriñ wax ñun ñi ñëpp dañuy tuddee sëriñ mais ñun duñu sëriñ ñun ay jëwriñu sëriñ Touba lañu ñun liggéey sëñ Touba la ñuy wattu kullukum raayin an kullukum mas'ulin an raayiyatihi nous sommes des bergers et vous êtes le troupeau Nous sommes des bergers, vous êtes le troupeau. Et nous devons veiller sur le troupeau. Et le troupeau, c'est le disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. bu dee tiijaan la sàmm la lañ koy sàmmloo alaaji Malick boo ko liggéey moo teg ci daram liggéey ko ñaan ko yàlla ba yàlla defal ko bu dee Cheikh Saadi bu la yonent bee tax buñ leen joxee cër yonent bi moo tax ñu jox leen cër yal na yàlla dolli leeram Sénégal c'est une ville cosmopolite Sénégal lépp moo fi daje Sénégal ay nit yu baax ñoo fi nekk sànq Adama mi ngi koy wax mu ne yëngal nañu yuuxu nañu ba pare mais dara parce que mag ñi fi tëdd seen kurus kun fayakoon bi moo diis dafa diis li sëñ laa daan wax ne Sénégal ku fi bëgg indi ay sa kaw lay këpp billaahi loolu rek mooy dëgg boo koy wax nag ñenn ñi nga xam ne gëmuñu dara nag surtout les philosophes ak les analystes politique dañuy taxaw fay naan waa baax na toog leen foofu rek di wax naan sëriñ si sëriñ si ba réew mi tàkk réew mi kenn mënu koo taal xam nga lu tax kenn mënu koo taal parce que ñëpp bëggante parce que l'islam diinu jàmm la l'islam diine jàmm la ñun suñu l'islam gii ñu am Sénégal amul fenn dans le monde fenn dans le monde na amul fa sénégalais yi ni ñu gëmee yàlla ak ni ñu yaakaaree yàlla ak ni ñuy jaamoo yàlla wallahi taalaahi amul fenn foo mën a dem ci àdduna ba amu fa ba màkk nag sama sama kàddu ca kaw ba màkk su ma la ko waxee xam naa ko man màkk amul kenn ku bokk ci rasulullah sallallahu alayhi wa ñeme di yëkkati sa loxo ne man sotu yonent bi laa buur yi dañuy jàpp tëj baa ñu rey la amu fa amu fa de waaw kon jàmm fii dafay lal Alaaji Omar Fuutiyu Taal liggéey bu rëy bu mu liggéey bañ gàcce am jom am fit bëgg lislaam dundal lislaam tubaab bi bëgg ko toroxal mu ne ko doo gis sama doo doo gis sama doo gis sama sama koor man il est rentré dans les falaises de Baye Ndiakhar Alaaji Malick tubaab bi taxaw ne kenn du fi taal taalu jàngu mu ne dina fi tàkk naasiril xaq bil xaq taxaw Maodo ibnu Ousmane baayu Serigne Babacar Sy Malick man duma fayee ko daf ma ne jàngaleel te doo fayu waaye nag maa ngi joxe mhm. te sama xaalis mbàkki li ma jaaxal mooy xamu fu muy jóge day ñëw rek barki Serigne Touba na ñëw rek day ñëw rek ñu indi fanweeri ma fatil Bichri ak ñett ndeysaan waaw waxal ko ñu indi garaam boobu bi ñuy utal Serigne bi gungee ko ko hmm. garaam ngi bëgg a bari <laughs> may sàkku ku fi teew ku nekk nag fukki junni rek laa wax waaye mën na da koy ëpp sax nañu dajale addiya gi ñu dungee ko sëriñ bi kii xamul lu dul lislaam nga dëgg de dul diine nga dëgg de mbiram yëpp diine lislaam la lii daal moom de xanaa dam na ni nga naanee ko war waaw suba moom laa naanee war ga xaaral xaaral xaaral ma ne ko joxoon fan ndànk ba yàkkam ci yow la jëm moom la defoon invité d'honneur ndeysaan laxasaay bi ana ak ñaari kaamilu alquran ndeysaan jox ko Cheikh Ibrahima Cissé ngir mu jox ko rajo jox ko Ismaël léegi nag la ca des mooy sëriñ bi doogu moo ko de damay dugal suñu yéene rek bëgg a dimbali waa xar yàlla ñu dund ci njub na mbokk yi jóg par sàmm dem nële ñoom Adama Faye nit ku baax la sëñ bi Adama moo ko gën la dëgg maa woo alxamis ne ma dangaa wooteel sëriñ bi wax ma loo bëgg ma def daa bëgg rek. daa bëgg daa bëgg oto jox ma. Mhm. ne dox ci course yi. Mhm. yëkkati cinq cent mille nee ma. Mhm. fexeel bés bi jag. am na benn nag bu nekk fële demal jël. yal na la yàlla fay sa xol. amiin yaa yal na la yàlla dëgëral. amiin yaa yal na yàlla sàmm la. amiin monsieur le maire Pape nii. dañoo ne suba la tabaski. mu yëg ne. moom war ta jënd xar te man aw ma xar mu yónnee ma am xar ba ma dajee Tabaski Mbàkke ba tey maa ngi doog a am xar bu mënta jooy ndax macha allah yàlla yàlla sàmm la di ñaanal imam Moustapha Samb amiin waay di ñaanal ñi fi teew ñëpp léegi nag nañu dajale addiye gi ñu indi ko Mbàkke xar yàllaa ngi nii dëkk bu la ñëpp bëgg ñëpp ko dëgg la loolu dëgg la dëkk bi Mbàkke ñëpp ñoo la sopp waaye maa ngi lay ñaan nga defal leen tawféex mm-hmm, defal leen ñaan li nga waxtaanee nii moom képp la ñuy dund addee gi ñëw leen doy na indi leen addee gi waaw kon léegi cant rek moom ni ko cheikh bi defee rek maanaam santaat ma jóob aadama wax dëgg yàlla ci ay teraangaam moom yàgg na ci loolu daal yàlla na la yàlla taxawu amiin amiin e tamit ñi ngi doon jàmbat sànq mbiru Khalifa Sall waaye dafa mel ni natt bi jeex na waaw dafa mel ne natt bi jeex waaw loolu laa gis waaw aadama xam nga fan naa la waxe woon ne la président Macky Sall dina am man sama làmmiñ baaxut HLM la woon def naa ba ngay daanu di ma jox oto bi falaa ko waxee woon ndeke ba ma koy wax bal ba tàkk na waaw kon ndokk bi ma ci yàlla suturaale yow loo wax te yow sama xarit nga nit ku baax nga ma jóob mii ku baax la ndax ni mu def Cheikh Khadim kontaan naa ci lool yéen ñaan ñi comme ni nga ko waxee sànq vous êtes des ay jullit ngeen ay doomi jullit ngeen kenn ku ci ne day am lu mu bëgg ki yàlla wax ni moo koy jël rek moo koy jël. dëgg yàlla wax na lii kenn mënu ci dara. Mhm. léegi na ñëpp ànd liggéey réew mi. Mhm. jot nañu liggéey réew mi te bàyyi caaxaan yeeg bàyyi wax yeeg xuloo yeeg dàggasante yeeg yooyu amul njëriñ ci biir réew. kon ñi ngi sant maanaam ñi fi ñëw ñëpp politique ñi ngi leen di sant bu baax mënuñoo tudd ñëpp. di ziyaarewaat shérif bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam yéen a may laajal addiye waaye addiye ji ngeen may laaj joxal leen ma ko shérif bële muy addiye maamam ndax fii lu fi nekk moo ko moom waaw jox leen lépp shérif moo ko moom maa la jox addiye ji mu mel ni sëñ Bamba moo ko jox rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw loolu waaw ñun loolu tiitaluñu alal tiitaluñu eh, te ñun yàlla dafa def ni Daaru Salaam nañu bokk dañoo tabe lu ñu am dañ koy joxe waaw kon nag képp ku fi ñëw mooy autorité locale yi ne fii ñi nga xam ni coutumière yi xaritu Baye Ndiaga yi ñépp rek taxaw seen doom Cheikh Khadim Ndiaye wettali ko si guddi gi te xale yi gën a ñeme xoolal xale yu ndaw yi nga xam ni ñi ngi leen di defar ñii ñooy yaakaaru suba mag ñi moom waxatawu lu ma leen fu ñuy wàcce kaamil ñoom ñoo fay dem di fa wàcce kaamil kon yàlla na yàlla fay leen seen xol yal na yàlla taxawu leen zaahiran wa baatinan li ma leen di ñaan rek mooy teel leen ma sama waa ji teel leen ma Cheikh Khadim teel leen ma Cheikh Khadim teel leen ma Cheikh Khadim soxna yi Baye Fall ne Baye gaa ngi gën a bari rek waaw soxna Fama téye bu baax jàpp ba mu dëgër rek foofu rek la liggéey bi nekk jàpp leen jàpp leen jàpp leen gunge leen xale yi ñeme leen bu leen déglu ku leen wax kuy def lu baax soxlawul ngay déglu ku lay xas wala ku lay wàññi yaay booy yi wettali leen seen doom yi ngeen jàppale leen liggéey sëñ Tuubaa bi ñuy def bàyyi leen ñu jeexal ci seen doole lillahi wa rasulihi musu leen gis ku liggéeyal sëñ tubaa perte déedéet musu leen koo gis sëñ tubaa amul lor amul lor waaw kon nag yàlla na yàlla dooli sutura ñu tasefaat fi ay déwéni déwéni déwén ara kulla madhi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 فهب لنا اللهم رضاك اللهم قربك دلنا وجودك دلنا عليك وإحسانك قربنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يؤثر عليك اللهم إذا علمك بحالنا يغني عن سؤالنا يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا من ليس بقائب منتظره ولا بناء فيقظه ولا بقافل فانبهه ولا بناس فاذكره يا عالما بالجملة وأن قنين التفاصيل يا سامعا لغال وغيل كفى علمك عن المقال وانقطع الرجاء إلا منك يا متعالي وخابت الآمال إلا بك يا الجلال والسدت الطرق إلا إليك يا مفضل يا الله يا سريع يا قريب يا مجيب أغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وانصرنا جميعا يا رب العالمين العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi fi teew ci ndigalu sama mag sama sëriñ Cheikh na Cheikh Sidaati di Cheybani ul Cheikh Day di ku fonk soxna ma Ayda Diagne torop dafa sori ci moom laazimil karim bi ñu may woo barki démb maa ngi Saalum tey ci suba 11 heures maa ngi Jolof Daara Jolof mu woo ma téléphone ci whatsapp bi jotuma mu woo ma appel normal mu ne ma loo mun a def tey journée ma ayda bi il faut nga dem teew ko wallahi une heure laa jógee daara 17 heures laa woo ma ayda ma ne ko egsi naa waaye tamit xam naa ne loolu tamit du ci ñoom ñëpp ci yàlla subhanahu wa taala la ndaxte yàlla du naxaate man kaana lillahi kaana allahu lahu hmm. te dëgg tamit yàlla moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàngal ne qulil xaqa walaw kaana ala nafsi man tàmmu ma wax musuma wax du ma nangu wax ndaxte xamuma dara ndonga laa damay sakku di jàng ba léegi waaye tamit ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ida akramta alkarima malaktahu wa ida akramta allaina alayka tamarrada te man kadara dunaa unnaasu alayhi bil ihsan fa huwa min ahli aljanna te maa ngi seede ne eh, Aboubacar mi hmm. wallahi ci bi ma toogee ci tant bi hmm. déglu waxtaanam hmm. wallahi ci Aboubacar Siddiq directement laa koy xoole laazimul karim waxuma ko nag mu neex ko wala mu neex leen wala waaye alxaq moom yaalu wala yuda ali dëgg moom dëgg rek la dëgg la waaw yàgg naa tamit toog ci tan waaye sëriñ taxaw mu wax waxu yàlla wax li mu wax ba mu dugg ma uh-huh. ba jóguma ñibbi uh-huh. ma xaar ko ba mu jeexal uh-huh. wallahi ci moom la yal na yàlla guddal fanam. amiin mënuñu ko defal nag lu dul ñaan. dëgg la ndaxte suñu borom rek moo am kattan. moom mooy nangu ñaan. ñun mënuñu dara. dëgg ñun ay jaam kese lañu. te mënuñu fexe ba dara am. moom mooy borom kun fa yakun. innahu mujibu da'wata daa'i idaa da'aa rabbana allahumma ندعوك أن تطيل عمر أبو بكر يا الله اللهم ارفع درجته اللهم طول عمره اللهم اجعله من قومك الصالحين مقتربين إليك إن دعوك تستجب دعاهم يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم ببركة الصلاة على النبي الذي لا ترد به الدعاء يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته